asalaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñi ngi dellu di nuyu ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di kontaan vraiment ci yéen di leen remercier bu baax a baax a baax gis nañ seen taxawaay message yi ñuy jot encouragement yi et tout ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que gis nañ histoire yi ñu jot a participation yu am solo yi ngeen ci def jël seen xalaat di ko joxe te loolu dafa doon loo xam te ni xeebuñu ko benn yoon parce que ñun rek suñuy xalaat doyul donc xalaat yi ñuy jot dañuy jël jéem a boole ak yi ñu am xool nu mu gën a rafete ñu defee ko noonu et ñi nga xamante ni si nii ñoo jot a partage seen histoire ñu leen di sant bu baax di leen gërëm donc par ma voix maa ngi leen di jotalil ñoom seeni kàddu yu cant parce que tey dëgg la nous ne sommes pas des faiseurs de miracles mais xalaat yooyu ñu leen di jox ñoom xeebuñu ko benn yoon parce que ñi nga xam te ne dañ toll ci situation yu mel nii ay xalaat ak i conseil dañuy gën a soxla donc ñi ngi remercier ñëpp ñi nga xam te ne si joxe nañ seen participation que ça soit mu nekk ñi nga xam te ne dañ ko commenté wala ñi nga xam te ne dañ ko envoyé par message vocal wala ñi nga xam te ne dañ ñu woo aussi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn kenn ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi suivre vidéo ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen rappeler aussi que numéro bii nii mooy sunu service commercial képp ku am loo bëgg jàllale incha allah boo ñu contacter dinañ waxtaan ak yow. alors tey waa lu xew TV ñu ñëwaat encore di leen indil beneen vidéo mu nekk aussi sunu benn sœur boo xam ni moom dafa gis boppam ci li nga xam ni moom la Marème di dund ci série bi di maîtresse d'un homme marié ngeen baal ñu nag début histoire dinañ dagg tuuti foofu parce que turam la ñu ñu feeñ. et que également voix bi dañ koy modifier parce que bëgguñu ñu ñu xàmme ko alors sans plus tarder dañ leen bàyyi ngeen déglu histoire bi après ñu dikkaat continuer waxtaan bi te ñu ngi leen di ñaan aussi képp ku seetaan vidéo ba pare boo ci amee sa xalaat nga joxe ko comme d'habitude donc ñu déglu ko dikkaat continuer waxtaan bi. en lu Marème Diagne di dund rek amul benn différence loolu lay dund réellement dama doon dund ak sama copain. pendant cinq ans sama copain musul musuma xam ni moom dafa takk jabar ndekete dafa takk jabar ba am ñaari doom à chaque fois ma demee ci kër gi muy naan jabaram kii sama xarit la kii sama lii la jëlika tamit musul xam ni faram boobu bu muy dundal jabaram moo nekk noonu kër gi dama dem tout le temps jabaram mais musuma rendre compte ni jabaram moo nekk noonu ndaxte bu ma nekkee ci kër gi dama ko gis moom ak jabaram ñu toog te jabaram tamit musuma wax ni kii sama jëkkër la non dama ci kër gi mooy loolu daal par ci kër gi mais musuma rendre contre ni kooku noonu jabaram moo nekk noonu te moom daf man bu ma demee ci kër gi moom day génn carrément dem yoonam pour ñu bañ wax ci moom léegi benn jour laa xam ni jabaram moo nekk kooku léegi bu ñëwee bu ñëwee suñu kër ama disant que kooku sama xarit la kooku lii la kooku sama jabaru mag la waxuma dëgg daal daf ma doon fenal benn jour ba mu nekkee sama kër jabaram ñëw fekk ko foofu mu ne ko yow yow lan lay lan ngay defee nii ba ngay jógee kër gi da nga bàyyi fa xale bi xale bi feebar lool ba ngay jóg di dem liggéey li centi woo sax kooku lan lay dund xale bi nu muy mer nga génne noonu bàyyi ko ci biir kër gi ma ne ko pourtant doom ji man kese juruma ko man ak yow ñoo ko jur man ne ko waa yow lay wax nii ko diw la lay dégg mu expliquer ma ni kii doomam la bàyyi kër gi te doomam dafa feebar muy ñëw fii ma ne ko non ma ne ko man sama kii sama musuma xam ni kii dafa am jabar dafa am jabar ba am doom léegi maa ngi dëkk ak moom noonu euh, ma bëgg kaa baay mais nu ma xalaatee nit ñi ak lu jot lu jot a sama diggante ak moom lu ñu mën wax foofu noonu mën nar ko bàyyi noonu noonu mën a noo day yomb kii ak fen bu ma fenal du ma ko mos a bàyyi nii parce que bu ma ko bàyyee daf dama koy perte dama ko nopp tellement mooy loolu te moom tamit valable à moom tamit bu ma gisee ma nekk beneen xale bu góor daf may andi lay problème wala mu doon muy nekk di xeex ak kooku daal mu fekk nag bu ma gisee Mariam ñaari copainam di xeex jour boobu dama tëdd nii ma ñii moom xaw ma ndax dañoo dugg man ñu ñu teg seen ñu dugal thème bi seen théâtre daal finalement affaire bi bu ma koy raconté sax mooy loolu en tout cas daal lu Mariam Diagne di joué ci théâtre bi man lool laay dund réellement kër gi bàyyi fa dara gis nga ba ni euh, jabaram jabaram moo nekke noonu ma wàññi fa sama loxo te ku góor gi chaque jour sama kër lay xanaan moo ko yóbbu seen kër loolu laa am lu ma leen di wax lu ma dem di dund rek histoire bi mënu ma raconter lu ma dem di dund loolu lay dund ak. donc mbokk yi ginnaaw bi ngeen dégloo histoire ba pare lan moo ci seen avis kenn ku ne loo ci xalaat mën nga ko def ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message vocal numéro bii di affiché mooy suñ numéro WhatsApp. alors tey vidéo boobu la ñu indiloon donc kenn ku ne boo ci amee sa xalaat nga joxe ko ñu waxtaan ci weccoo idée ñu ngi tuubaa di jégalu encore une fois képp koo xam ni vidéo bi ñu fi wax nii laal na la ñu ngi tuub bu baax di jégalu lépp loo xam ni si baax na fi rek ngeen xam ni ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci man mii di wax la parce que nit matul di leen jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen di leen jox dig daje ci beneen vidéo merci à tout